waaw maa ngi leen di fay xam na naqar ju ñëpp ko bokk ñoom am naa naqar waaye yéen mu ëpp naqar yéen ñi bokk moom société ah Ablaye nag tubaarkàlla tubaarkàlla la yàlla mu ko cat jiitu xale bu baaxoon la ku ma yërëmoon la ku ma iiroon la ku ma aaroon la gannaaw yàlla maa ngi koy sant nag di ko gërëm yàlla na suuf sedd ci kawam man nag maa ko jur nag waaye def ma dara lu ma metti fonkoon na ma fonk ay rakam bëggoon na ma bëgg ay rakam yàlla na suuf sedd ci kawam xale bu baaxool la xam ne waa amoon yërmande ci waajuram ku bëggoon waajuram ku bëgg ay rakam ku ma bëgg ku ma bëgg te yàlla tax yàlla suuf sedd ci kawam yàlla suuf sedd ci kawam ah wax dëgg yàlla dafa feebaroon rek lu xam ne ah feebaroon nag feebar bi la man xamul ko dal ndax xam nga ñun mag ñun duñ lijjanti loolu xale yi dañoo fa naan dem ak loolu waaw kon dafa taxawaay bu mat ñi nga taxaw nañ ko taxawaay bu baax taxaw nañ ko bu baax Youssou Ndour taxaw na ko Bouba taxaw na ko Ndiaga Ndour taxaw na ko tubaab fa la Birane Ndour ñëpp macha allah macha allah. groupe na sey waa daal kenn amul lu mu leen waxee lu may sant leen ak gërëm leen kese waa Futurs Médias moom laaw la cat. waaw kan a bëggalee yàlla rek. jooñ yal na ko yàlla yërëm xaree ko àjjana massa yaay massa massa massa kër rek waxee ma sama yaay ma may jàmbat balaa taxawal kër ah yaay booy ñu ngi lay massa bu baax a baax yàlla baax na yàlla may leen ko ndox may leen ko ndox. may leen ko meew mu naan yaay massa. may ko yaay na ko yàlla yërëm. yal na yàlla yeggati mbëbëtam ci yow. massa mu ngi naan meew mu ngi naan meew c'est mu ngi naan meew c'est c'est bon massa yaay massa nitam def ñu ngi lay massaw bu baax yaay booy di la bu baax di la wax bi nga ne sa doom amoon na ko ci yow amiin amiin na ko yàlla su sedd ci kawam kër dong moo doon mébét tabax man su ma fekkee fi ne ma yaay bala ma am jàmbal dama laa dugal ci bala ma am jàmbal dama tabax kër dugal la ci waaye yàlla weddi na lii moo neex suñu borom yàlla lu ko neex rek lay def ñun dara yàlla moo moo nga doon def nii yàlla suuf sedd ci kawam jërë ngeen a ah lii rek su ma dundee rek yaay ma dundee ba génne fii li xam ne rek lépp dëgg la su ma dundee ba génne fii loo bëgg rek loolu laa lay defal ma ne ko ni nga ci génn ah waaye ma fa mu jee dem war na ginnaaw rek bañ maa xool war na ginnaaw rek xool ma xam ne kii dem na nangu maa xool benn yoon ma xam ne kii dem na ma ne xale yi ma ñëw xale yi ma laaj ma leen mu sant yàlla baax mu ngi sant yàlla baax yëkkati yàlla moom bañ na. mbokk yi suñu yaay reyaana moom mooy nuyoo nee mi ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad nee mi ngi sant képp ku fi teew. nee di leen ñaanal yàlla yàlla na ngeen delloog jàmm salaam. nee di sant waa Télé Futurs Médias yëpp. yàgg naa ndax nee na yàgg na dégg. gémmeñu Ablaye ci na dégg gémmeñu Ablaye Ndiaye ci ñoom. nee na Ablaye nag doomam la. nee na mooy taawam. nee féete ko fu nekk nag. nee mënal ko lu ne. nee saa bu bëtam xonkee. nee su ko woowee rek danaan ko maa ngi ñëw léegi. nee tey tey jii la mës a am lu ko naqari ci Ablaye Ndiaye nee saa bu waxeek moom mooy xolam sedd na nee daf koy ñaanal yàlla yàlla na suuf sedd ci kawam nee di ñaanal ñi nga xamante ni ñoom la bokkal fa muy liggéeyandoo ñëpp mi ngi leen di ñaanal bu baax a baax ne di ñaanal Ndiaga ak Bouba ak Youssou Ndour ne gis nañ li mu def yëpp ci doomam ne gumbawul nag da daan wax ak moom ne mu dégg ci moom muy wax ci ñoom lu rafet ne muy sant soxnaam bu baax a baax a baax nee na ndax bàyyiwu ko benn yoon mu wéet ne su ko bàyyi woon mu wéet moom mi lay sonal nee na ndax xam na ni moom mii sunu yaay rayaana wérul te yaramam neexul ne su demee ci moom bay waxak moom ba Ablaay jooy day tourné ne ko Ablaay lan ngay jooy ne ko bul jooy de nee mi ne ko moom su demee bay jooy rek du jooy nee mu taxaw ko fu ne moom Ablaay Njaay nee na loo xalaat ci lu baax foo xalaat ci lu baax rek Ablaye njaay taxaw na ko fa nee fu mu mas a waxee rek ne ko yaay ne bala maa am lu ma neex dama laa génn ci kër gi nga ne nee ko yaay bu ma amoon pàkk ba tabax ko ba mu yegg ba dugal la ci rek moo ma moo ma gënal waaye ne ko fii nga dëkk neexuma de yaay mu ne ko loolu la yàlla dogal nee mi ngi gërëm Souleymane ndax Souleymane bàyyiwu ko benn yoon mu wéet nee na papay Souleymane ak moom mii Rayane ñoo bokk ndey ak baay waaye musu ko bàyyi benn yoon moom Souleymane mu ne ko saa bu ko wootee mi ne ko bàjjen jàmm rek moo fi xew nee ba mu ko mujjee woo fii barki démb baatam bi ñagas lool mi ne ko Ablaay yaa ngi may nax ne mi ne ko du dara daal di bàyyi téléphone mi ne ko jox ma awa mi ne ko awa lan la mi ne ko lan moo xuural baatu Ablaay bi nii mi ne ko Ablaay dafa nangu la lekk mi ne ko jox leen ko lu tàng ndax baatam bi ibeeku ne booba xam na ni Ablaay day dem yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na suuf sedd ci kawam nee musu koo def dara lu ko naqari nee na dara naqariwu ko ci Ablaye Ndiaye nee bu nu jàppantee ba jàppante ba mu tàng day albatiku ñëw ne ko yaay lan ngay mer bul mer baal maaq xam na ne xaalis rek la bëgg. nee xam na ko xam na ne xaalis rek la bëgg. mu dank lu bari nee mu dank lu bari jox ko moom mi. ne ko ne ko baal ma àq waay. ne ko boo ko deful woon danaa la def lu mi ne ko boo ko deful woon danaa la def. nee na loolu rek la xam. yàlla na suuf sedd ci kaw. nee jërë ngeen jëf waa Futurs Médias.